ni ko Abdoulaye ibnu Salool ñu ngay wax ak yahude bañ leen bëgg a génne mu ne naa faqu naa fekk nañu yaqulu na danañu wax li yaxwaan yi ñeel ay bokk seen allazi ne ñaa nga kafaru li mel ne kitaab yi ci ñuy téere te mooy yahud yi de naa fekk yaa ngi di wax naan ñun ñoo gën a ànd de naan leen la inu xurujtum wallaahi neem génneef na leen danaxrujanna kon kay danañu génn maa ak man ak yéen ñun de ñoo gën a ànd bu ñu ku ñu bëgg a génne rek ku leen bëgg a génne rek ñun danañ gën a ànd ak yéen de wala nu teewoo toppatuñu de ñun ñoo gën ñoo ànd bu ñu leen génnee danañ génn ànd ak bu ñu leen génnee Madina danañ génn ànd ak yéen te kenn mënta jaar suñu digganteeg yéen waaye dem xaret naag yéen la lanansurannakum kon tey dinañ dimbale leen de suñu leen songee nag bëgg a bu baba, ñun dinañ taxaw dimbale leen ànd ak ànd ak yéen ci ñi leen ci de wallahu yàlla yashadu dana mu seede dana mu xam innahum naka ñoom naa la kaadibuuna danañu nar yàlla xam na ne li ñuy wax noonu di ko waxee wóor ñu naan ngeen mu ngeen génnee ñu génn ànd ak bu ñu xaree yéen danañ xaree ñett ñi leen dimbale bu yàlla mu xam na na lu ñuy wax dara du dëgg ci ñoom ñoom xam nañ ne dañuy fende lay na ko yuwu walaay ndéem génneef na leen laa yaxrujuuna génneef ñu ah ku ànd ak yéen wala in nasaruhum ndéem leen sax comme niñ koy waxee dañu wëllu na kon tey nañu mel ne dët baara lu mu weede ñu ngi wax naa bu ngeen génne ñu bu ngeen bu ngeen génnee ñun dañu ànd ak génn kenn mun ko daal suñu diggante géer waaye yàlla xam na ne loolu ñuy wax du dëgg si ñoom de dañuy fen rek bu leen génn bu ñu génne yahood yi tax na fekk yi génn ànd ak ñoom de te bu ñu xaree ak ñoom itam bu yonent xaree ak ñoom li ñu wax ne dañ leen dimbale du ñu leen dimbale de wa wa dina sax dimbale nañ leen bu boobaa dañuy daw bàyyi faqara ba de tax yàlla xam na loo xam ne xamagut amagut yàlla lu amut xam na ko lu amut bu amee nu muy mel xam na ko loolu yàlla moo ko xam nit xamu ko rek nit mën naa xam lu am waaye lu amagut nit mënu koo xam lu am ba pare li muy def loolu nit mën na koo xam waaye lu amut nga xam ne bu amoon la muy def loolu yëpp ci xam-xamu yàlla rek yàlla ko xam te ci xam-xamu yàlla boobu la xam-xam boobu nga xam ne xam-xamam na ci ci dañu xamalee ne ne wala in nasaruhum doonte dimbale nañ leen la yuwaldu na kon tey dinañu méngale la baara gannaaw ya su ma laay ñu soroon topp defu dimbale leen de bu waxee e, ne dañ leen dimbale waxuñ benn dëgg ndax te buñ leen dimbale woon buñ leen dimbale woon bon danañ daw te kenn bu ñu dawee itam bu boobaa duñ am kenn ko leen dimbale ci yewut yi rek bon nag nafeq yi ñu leen di dig leen ko wax bu leen ko gën ay na rag la la am tu ngeen julli ñii achadu yéen a gën a tat rahmatan ci ragal ci sudurim ci yëppal seen de yéen jullit ñii yéen la na fekk yi gën a ragal ci yàlla rek ndax ñoom ñu ngi jàkkaarloo gi yéen ngeen moo tax ñoom yéen lañ gën a ragal ci yàlla rek minallahi ci yàlla yéen lañ gën a ci sabab si naka ñoom xawmun aw nit lañ laa yafqahuuna ñu dégg ci ñu rek noonu léeg la yàlla di ne la laaj na fekk yi ne mënuñoo dégg mënuñoo xam ñu yonent bi di wax laa yuqaatilunakum adat ñëw yéen jamii'an min mu ngi mboole de ñoom na fekk yi ak yowoon yëpp bu ñu àndee ngeen itam duñu xeexal ngeen de illaa fi quran dara ci ay dëkk yoo xam ne yu nekk ca biti ca biti la muhassanatin yu ne ñu sange oo min waraay di nurin ci gannaaw ay loolu de bu ñuy xeex ak yéen ñu ngi nekk ci ay dëkk yoo xam ne dëkk yu sanewu la ñu nekk ci biir Tataja wala boobu ñu nekk ci gannaaw ay loolu yoo xam ne dañ ko tawax ngir jaarale ko seen diggante ak yéen ba duñ mën a xeex ak yéen de waaye ñu moom ñoo jàkkaarloo ngeen rek xeex ak xeex loolu moom duñ ko def de ba su moom xayu xare seen bay nekk diggante seen chérif duna aji métti la mu de seen xeex ñoomu kese. bu ñuy xeex ñoom rek ñoom na fekk yi kese wala ñoom yowut yi kese xeex bu métti dañuy yoyante seen diggante tax si boobu da jot leen jëmee ñuy mbooloo da nga foog ne li ngeen di gis ñooñu yëpp na fekk yi da bokk benn jot leen jëmee ñuy mbooloo bokkul bu may ko seen chetta yi fa seen ci kóolamu de seen mbooloo yooyu gis leen foog na ñu ngi ànd ànduñ dara. seen xol yi bu benn seen xol yi dafa fasantikoo ku nekk mi ngi xalaat ak na xalaat de ñoom naafeq li gën a siiwee mooy ne ñu ragal lañ mooy ragal nañ jullit ñi mooy ne ay ñoo xam ne doo leen fekk mukk ñuy ñuy sàkkul doomu aadama jiw wala lu baax te fuñ fekk lu baax buñ ko mën a yàq danañ ko yàq loolu mooy ñu koy naafeq de te dañoo ragal a ragal ragal ba nga xam ne boo ne tëf rek ñu daw daal que loolu seen benn moom ci naka ñoom xamu nga woon lay laa yàq loolu ñu ngi xeetu fii rek ñoom naafeq yi dañoo doon ay nit yoo xam ne nit ñu amul nit ñu ñàkk xel lañ loolu moo tax ñu xamee meloo naafeq woowu ñu amee rek ndax suñu amoon ay xel dëgg-dëgg danañ xam gëm yàlla moo gën ci ñoom. ëpp njëriñ ci ñoom ci weeñal feeñal gëm tey ëllëg nga feeñal xamoo foo sax fenn mu zëb-zëbina zalika laa ilaha wala ilaha noonu la yàlla wax ci ñoom kay du nit du nit am nit ku am dafay dal sax seen ci ñu nit na ñu mu ne ñooñu yàlla xalaat sa xare Badar nañ xam ne ñoom tamit seen mbir mën naa mujjee noonu de zaaqu mos nañu wa baala amrihim mu yëg mbir seen ci mbugal de waa Badar yooyu ak kon du dëgg de wala war na ci ñoom naa fekk yi azabu mbugal alimun mu daa ji métti ñoom naa fekk yi xel yàlla dana leen mbugal mbugal moo xam ne mbugal mu métti lay doon ca àllaaxira ndax seen jikkoo naa fekk yi xam ne noonu la mel de ndax seen jikkoy naa fekk yi ni mel rek noonu la yàlla di jëflante ak ñoom ëllëg ca àllaaxira de te mosali seytaan yi mu ngi lay indi beneen léeb melo seen melaw seytaane la iskaala ba mu waxtee lil insaan yi ñaal nit ne ko ëpp fuur si ma de wala maa kafara ba mu si jootee mu wax ne nii nag man ba ñëw na ci ñaaw ni ko seewoo inni naka man axaafullaaha dana ma ragal yàlla rabbal aalamiina kay borom mi njëkk de loolu misaal lañu yàlla di jox ci nit koo xam ne jàng yàlla bu baax la boo xam dafa dogu woon rek dogu jëm ci di ko jaam ak seytaane soo xam ne nag bëgg na koo yàqal liggéeyam seytaane si mu ngi tudd ab mu ngi Balsisa jàmm yàlla mu ngi tudd Balsisa ndax xisa bi ci ñoom rek la em diggante seytaane suuf si ñuy tuddee am yëpp ak diggante Balsisa wala xisa bi dañ koy bàyyi mu ubbeeku rek nekk moom isa ñaar doomu aadama ci jamono bu mën ci nekk rek mu mën cee génne ay waar ak njëriñ Balsisa benn jàmm yàlla la woon boo xam ne dafa dogu rek labbewu jëm ci yàlla di jaamu rek yàlla rek mooy mooy mooy càkku téefam ba saytaane ab yàpp ñu wax ab yàpp nga añaane ko ci loolu bëgg koo yàqal jaamoom de dal di dem ci buuri jamonoom fekkam ngi am ay doom doom bu jigéen bu rafet moom la gën a dugg ci doomam bi mu dugg ko saytaane si dugg ko rek jox ko feebaru euh, daan rab yooyu ñuy wax jox ko feebari gànde bi xale bi di daanu di daanu rek saytaane seen buur bi ne ko sa doom ji daal am na sëriñ bu nekk fii boo ko yóbboo bu ko ñaanalee mën wér de mu daal jël doom ji yóbbu ko ci Barsisa ngir ne na ko ñaanal Barsisa nangu ne ko teg ko foofu mu teg Barsisa nag saytaane ñëw di ko jax-jaxal ci kaw xale bu jigéen bi di jax-jaxal xale bu jigéen bi itam ci seytaan ci ci barsiisa léeg-léeg mu daanu seen daanu yooyu nga xam ne bu ñu ko defee dootuñu ànd seen sago yaram yi di génn su ko defee barsiisa di xool ba seytaane dugg ci xolam ba mu daanu ci ndaw si te dëgg moom lu mu te moom ndaw si biir bi ñoo si biiree ba se saytaane moom bu am yet soppeeku nit ñëw ci moom ne ko ah kilifa gën ni yow ak ne nit fonke ak ni nga amee diine lii bu lii bu tasaaroo dana ñaaw de dana ñaaw ci yow léegi nag amoo dara looy def lu mooy rey ko rek suul ko bu ko defee mu jeex rek mu dal di def loolu ko saytaane wax rey ndaw si rek dal dem suul ko seytaane ñëw ci buur bi ne ko sa doom ji nga kon sëriñ bi doo ko seet mu ñëw seet si ko ne kon sama doom mu ne ko la ko amee woon rey na ko dee na buur bi dal di nangu dal di ñibbi seytaane ne ko déedéet dafa amee woon rey ko de moom moo ko rey daf ko biiral bañ gàcce rek moo tax mu rey ko mu ngi ko suul place sangam boo demee suli ko da nga ko fa fekk de mu dal li dem ca place ba sulli ko fekk fa ndaw sa fekk dañ koo rey fekk mu ngi biir itam rek mu daal di mer jël sëriñ bi jàpp ko toroxal ko fa sama torox bu nekk jaarale moom jaarale ko ci marché bi def ko yaramu neen lépp lu koy ñaawal rek lu koy toroxal def na ko ko ba ba jàppal ko nag eh, rey bu ñu rey nit dañuy samp benn bant ba kawe am na mu ko defee dañ ko ci xeew ca kaw bàyyi ko ñetti fan ak am ca ñetti fan seytaane dal di ñëw ah, sama waaj yu nga de mu ne ko waaw mu ne ko mën naa laa génne ci sa coono bii de boo bëggee mu ne ko ah ma ci yéene mu ne ko jullil ma rek su jootal ma rek boo ma su rek ma génne la ci mbir mi de mu ne ko naka laay su jootee ak niñ merewee mu ne ko da ngay junj su bi rek junjal su bi rek ne ma ngay su mu junju su bi rek ba mu jullee su bi nag iblis li bëggoon ci moom yépp am na ko ndax sa yaaloo rey na nit ba pare na seytaane yëpp boole na ko ba mu ko defee nag moom la yàlla di nettali mu nekk masali seytaan yi kenn nelaw seytaane isxaala ba mu waxee lil insaani ñaar doomu aadama fu jullil ma wala maa kafara ba mu jullilee ko aala mu wax moom seytaane ne ko inni naka man banii un aji dañ ne ma min ko ci yow seytaane daal di koy wax ne nag daal di koy romb foofu nag ne ko man dañ naa ci yow de inni naka man ataaku dana ma ragal laa yàlla rabbal aalamiina borom bi njëkk si seytaan koy wax loolu ne ko man déñ naa ci de ndax yaa ngi si yóotal lu dul yàlla te man nag loolu ci man di dégg dama ragal yàlla mi nga xam ne mooy borom bi njëkk rek fakkaana nekk aqibatuhuma mu seen ñoom ñaar seytaane sa ak barsi sa annahuma naka ñoom ñaar fi naari way nekk lañu ci safara xaali ni mbir ñuy way beel tëri sa de fiihaa ci suuf sale safara wa dalika loolu le jazaau zalimina mooy payat tooñkat ñi rek qissa bii am na bu niroo nag moom ca suratu Malak ca qissatu Balaam ibnu Baawraa moom tamit noonu la jëkkee woon nag yonent yàlla Moussa ak nitam ña bam dem na dafay ñaan yonent yàlla Moussa ca la ko yàlla xalagee doomu damay yi noonu lañ mel doomu damay yi ñeenti xaaj lañ xaaj boo xam ne dafay judduwaale mbubbam texe deyaale ak mbubbam texe xaaj boo xam ne dafay judduwaale mbubbam texea bi dee ak mbubbam texea deen xaaj boo xam ne dafay juddoo mbubbam texe gannaaw gi mu summi ko sëlmu ba mu tixaat yi aj boo xam ne dafay sëlmu ba mu tixaat yi gannaaw gi mu summi ko sëlmu ba mu texee ñeenti xaaj yooyu ñooy doomu aadama de ki juddoo mu ba mu texe deyaale ko mooy jullit bu juddoo nañ jullitam gëm na yàllaam gëm na yàlla dund na ci àddinaam ak gëm yàllaam dee yóbbuwaale gëm yàlla kooku moom texe na ki nga xam ne nag dafa yow moom gëmul yàlla nekk ci àddina bi ay tooñ ak mooy def loo xam ne lu bon rek la lekk ci àddina bi kooku itam dee na ak texaade texaade texaade dina de nit koo xam ne nag dafa ñëwee texe nekk ci sa mbir mu njëkk nga gëm yàlla di kër kër yi dem ba ci sa mu njëkk dund nga wéy di yàlla soppeeku wéefa loolu itam am na am na ñoo xam ne nag dañuy sol bu bam texaade di nekk ci seen saay-saay seen kéefër ba dara desul lu muy dee bu ko defee nag eh, nga sol mu bam texe nga tuub mooy julli xéefër bu dem ba mu yàgg mu tuub dugg ci diine moo tax yonent mu ne yàlla bind na leen doomu aadama ku ci nekk dowalal na la sa dowal kenn ku nekk sa dowal dañ ci dem di la sax dem nga ba nga xam ne sa dundu ay sebre rek moo ci des la la yàlla dowalaloon da ñëw mujjee ko de su fekkee yàlla daf laa dowalaloon ne yow aji texe nga ci texe rek ngay mujjule su fekkee yàlla def laa dogalal ne yow ku texaali nga ci ku texaali rek ngay muccule yal yàlla musal falamaa kafara ba mu sujootee xaala ka ci yow de inni naka man axaafu laa yàlla rabbal aalamiina kay aji moom it dee fi mu ko la waaye wa ko dëgg fa kaanat nekk aqibatuhuma mu seet ñoom ñaar annahuma naka ñoom fi naari way nekk lañu safara xaalidiina bi muy ñaari way deel sa safar sa fiyaa ci moom de wa dalika loolu le mooy pay xeefar yi de xeefar yëpp yàlla leen di xaaree safara yaa ayyuha alladiina aamanu yéen gaay gëm alquran ittaqullaaha ragal leen yàlla wal tanzur na xool na suñu bakkan maa xam dama la muy jiitale adim jëmee ëllëg de ca àllaaxira yéen nit ñi ragal leen yàlla te na ngeen seet ëllëg li ngeen di yónnee àllaaxira mu xaar leen fa de nit ñëpp ci àddina dafa mel ni rek ab àddina ab ab ab aw aw fas la rek ñun ñëpp ñu ngi ko war ñu ngi war rek dañal nag jëm fan jëm àllaaxira kenn ku nekk nag na bàyyi xelam li mu yóbbu àllaaxira la ndax dafa yóbbu loo xam ne bu demee fekk fa texe dugg aljanna wala dafa yóbbu loo xam ne bu fa demee daf ko yóbbu safara moo tax mu ne na ngeen seetlu li ngeen def léegi ndax li ngeen di def léegi ëllëg moom rek ngeen di te sedde nag yàlla sedd na ko mboolem xeeti teraanga ndax lépp lu mu bind ci kaw suuf doomu ko gën lépp lu mu bind ci kaw suuf dama dama ku gën ñu ngi werante sax dama dama ak malaaka ku gën dama dama mën naa gën malaaka waaye malaaka itam mën na koo gën waaye mën na koo gën gën de lu mën di am dama dama ñëw na yàlla may na ko ci àddina lépp loo xam ne dana dëgëral nekkam fii ci àddina ci ci dund ak lépp loo xam ne soxla na ko mu dëgëral ko ci àddinaam yàlla may na ko ko may na ko xel may na ko xam-xam may na ko pexe may na ko euh, euh, kattan loolu yëpp may na ko ko jox ko ko ndax mu dimbalee boppam nekk fii ci àddina ak itam dundal li nga xam ne moom la ko yàlla sant ne na ko dundal mooy dundal àddina itam doomu aadama def na ci lu bëree bëree bëri waaye lépp ci li ko def nag nga xam ne kéemtaan la waroon loolu ñu jaare ci gëm yàlla ñoom dañ ciy jaare weddi yàlla ne yàlla amul de yàlla du dëgg yàlla amul weddi te terewul waxtu wu nekk ñuy gis ci seeni bët ak seeni loxo ak seeni jëf loo xam ne xam nañ ne lii du xele ñu doomu aadama rek de kattanal yàlla dugg na ci moo tax mu sotti nii de oto yeeg avion yeeg bateau yeeg fusil yeeg téléphone yeeg yëpp xele ñu nit la waaye du xele yéen kese kese de ala fokk kattanal yàlla am a bari daal ànd na ci ndax bu ci ànd toon du sotti rek bon nag yàlla moom nga xam ne moo leen bind te te di leen xaar ëllëg ci àllaaxira te mi ngi nekk ak yéen fii pare mu leen di ëllëg ci àllaaxira ngir ngeen jot seen i pay bala ngeen a dem ci yàlla moomu seet leen li ngeen di yóbbaale lan la rek wa taxu laa ragal leen yàlla inna allaha naka yàlla xarirun ay yaqam la moom dinaa lu na ci la ngeen jëf ko de te da ngeen ragal yàlla ndax moo gën lu nit di yóbbu ya waat di yóbbu waale àllaaxira de ndax ragal yàlla ci la teraangaay doomu aadama di bàyyeekoo fii ci àddina ci la teraangaay doomu aadama di bàyyeekoo ci àllaaxira ndax coow li yëpp yëpp yëpp nag loo ci mën di dégg yàlla rek moom ay mbiram moo koy doxalee lu ko neex yàlla moom ay mbiram moo koy ko neex kon nag li gën a wóor mooy ne ittaqullaaha ragal leen yàlla inna allah naka yàlla xabiir mooy jox xam naa moom ko wala takunu waaye ne nag ñoom xéefar nañ bañ nañoo topp yàlla nanguwuñoo topp yàlla mu ne bu leen mel noonu ndax bu ngeen melee noonu yàlla moom du fi nekk di leen di fàtte waaye moom daf leen di bayi rek mu jeex seen bopp leen di fàtte loo de ndax nit bu demee ba fàtte boppam xamatul lan la lu ko neex mën na ko def ci boppam de moo tax gis nga ci ñi dem nañ fàtte nañ bayi nañ yàlla bàyyi nañ topp yàlla yàlla fàtte loo leen seen bopp ba nga xam ne xamatuñ sax lu ñuy defar lu ñuy war a bàyyi seen yitte yëpp mooy naka la ñuy dundee ak suñuy bànneex ci kaw suuf rek suñ bànneex yi naka lañ koy amalee naka lañ koy dundee loolu rek moo gën a bëri ci itte doomu yi ci jamono bi ñuy nekk ndax lan war nañ yàlla gannaaw yàlla fàttaloo seen bopp moom la yàlla di wattalikuloo mu ne wala takunu bu leen nekk que lazina ni ci ñaaña na su bañi nañu topp ak yàlla fa saahum fàttaloo leen yàlla soo may bopp seen rek ulaayika ñooñu la gars yi hum ñoom alfaasiquuna ñoom de way génn topp yàlla de laa yastawi hemotit asxaabu naari woromi safara wa asxaabul jannati ak woromi aljanna asxaabul jannati woromi aljanna hum ñoom alfaa'izuuna ñoom way texe de kuy dem safara moos ak kuy dem aljanna duñ benn de ndax kuy dem safara dafay texaani yàlla ñu ci yàlla musal kuy dem aljanna nag moom da dem ngir texe ñaar ñooñu duñ benn rek laaya ngoog nag ci laaya yi nga xam ne laaya yu feeñ nañ ci alquran law anzalna hada alquran jibril dafa wàcc di ko jàng ci yonant li mu koy jàngee jël mbaggam teg ci kaw boppam yonant ne ko liiral la mu ne lii la sama borom sant sama borom wax na ne kuy jàng saaba yi laayit yi jël sa loxo teg ci sa kaw bopp sama borom waat na ne lépp luy jàngoro ci yow moom dana ko faj lu dul jàngoro yi dee boobu xam ne amul faj de waaye gannaaw lu dul loolu booy jàng alxuraan jël sa baat si ci laayit jël sa loxo day ñor teg ko ci sa bopp lu def ci sa yaram ci feebar rek yàlla mën na ko diri de mu ne loolu la ko yàlla wax loolu la ko yàlla wax moo tax mu mooy tamit wax yonent sët ne ko jëlal sa loxo be ñor ko ci sa bopp be yonent si digle koy jëm ne képp koy jàngalaaye ci yii wala nga dégg ñu koy jàng ci sa kanam na nga jël loxo be ñor teg sa bopp rek lawal sal na doonte kon wàcce nañu haasal quraan jële al quraan yi alaa jabalin ci kaw doj wu mën ci doon la la xaasaan muy aji toroxlu mutasaddaan bi muy aji xotteeku ngir toj toj ngi min xasiyatillaahi ngir ragal yàlla de alquran jii ni ngeen koy déggee dama dama di ko xeloo dinañ toroxlu yàlla ba mujj toj toj toj de min xasiyatillaahi ngir ragal yàlla ngir ragal yàlla de waaye yéen dama dama yi ñuy wàcc ci alquran ak alquran ni ak alquran ni mu la doon wax yàlla yàlla teral leen ñu ko wàcce ko ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te bi mu koy wàcce yonent yàlla muhammad wàcce wu ko rek ndax ah, te defut defut ba xam ndax yonent elloo na ko de yàlla di bindee yëpp xol yëpp dafa dajale xol yëpp seen leer gis na xolal yonent yàlla muhammad moo ci gën set moo ci gën a moo ci gën a mën ko defee mu daal di koy tànn xol boobu mu tànn nag te ba muy te bindagu dama dama yi ba léegi xol boobu moom lay tànn ci moom la wàccee alquran bi mag ñi mu ne alquran bi soo ko dinañ ko wàccee ci kaw aw doj laal doj bi kelu ko ko keloo bon tey doj wi dana toroxlul yàlla ba dana mujj fàccire sot def ay doj yu ndaw ngir lan ngir ragal yàlla watil kadam saalu yooyu lépp ñu leen di jox nat de boo xam danañu def ko li naas ñaan nit ñi laa la ndaxte la ñoom yatafakkaru nañu fi xalaat ba gëm yàlla rek lii yëpp dañ leen koy jox ay misaal ndax ngeen mën cee xalaat ba gëm rek huwa moo wallaahu huwa moom yàlla allahu mooy yàlla lazi yàlla ma nga xam ne laa ilaha déet benn buur ba yow jàmm dëgg illaa huwa ndere moom aalimul xayb mooy aji xam ci fàddu wa shahadati ak de yàlla moomu nga xam ne moom rek moo xeeyoo jaamu yàlla moomu mooy kan mooy yàlla mi nga xam ne moo xam fàddu moo xam teew kooku mooy yàlla ñi nga xam ne moom la nit ñi war a jaamu de waaye ñu yeneen yàlla du keneen de ndax leneen du moom amul du yàlla yàlla rek mooy yàlla de boobu moom yàlla moomu arrahmaanu mooy aji yërëm ñeel ay jaamam fii ci àddina arrahimu mooy aji yërëm ñeel ay ay jam ëllëg ca àllaaxira de wallaahu boobu moom allaahu mooy yàlla lazi yàlla na nga xam ne laa ilaha déet benn buur ba yow jaamu ci dëgg illaa huwa dara moom kenn xëyowut ñu jaam kenn benn yàlla xëyowut ñu jaamu la de yàlla rek moo am xëyoo ñu jaamu ko terewul nag ramadan yi ñu seen bopp defaral nañ seen defaral seeni yàlla di ko jaamu boo demee grec yi yëpp dégg dégg yëpp mars Eh, yëpp tur yàlla yoo xam ne ñoo ko defaloon sant ko ci seen kaw di ko jaamu waaye yàlla ñu deful liñ bëgg rek seen xeer ko jam ko ay doj de yàlla moom kooku bon du yàlla de yàlla doo xam ne boo mewee rek dajale sa ay xeer jam ko ba mu daanu kooku du yàlla te yow te jaamu yàlla ji yeewe jaamu mu yàlla ji ne laa ilaha illa huwa moom arrahmaanu mooy aji yëram ñeel ay jaamam alwax ne mu mooy ak yërëm jëm ni dalal la ca àllaaxira de wa moom yàlla allazi yàlla ba xam ne laa ilaaha de benn buur weew jaamu ci dëgg laa woo dara moom de yàlla moom mooy kan almaliku mooy buur yàlla mooy buur kenn mu kenn du buur ci kaw si ak asamaan yépp ku dul yàlla de alquddus ka de aji set ci man yàlla moo set sell kenn benn kenn melut ni moom rek lépp loo xam ne lu xellu ci jëm yàlla yi yàlla set na ci loolu yàlla dégg na ci loolu rek asalaamu moo euh, asalaamu moom moo di borom mucc rek yàlla mooy borom mu mucc moo mat yëfam mat kenn melut ni moom rek jëmmam dafa mat jëfam mat ak doomu nag mat ak mat ak yàlla mat manque doomu aadama moo koy wone dama dama manqué manqué bu mu def rek dafay tegtale mat ak yàlla de ndax lan dama dama lu mu def yëpp yàlla bindoon na ca ezel ne lii jaam bi dina ko def bu ëllëgee bu jaam bi defee manqué manqué boobu dafay matal la yàlla waxoon dogoon ne dana ko def def na ko kon loolu dafay tegtale mat ak yàlla su ko jaam bi defu su fekkee yàlla bind na jaam bi dina def lii bés sangam waxtu sangam mu jot defu ko kon loolu dafay tegtale ne yàlla dafa manqué te yàlla manqué dafa mat sëkk moo tax mat ak ramadama dafay tegtale mat ak yàlla de ndax loolu ñu matali yépp lu yàlla bindoo ci ñoom ne danañ ko def buñ ko defee man ah, yàlla la waxoon mat na def nañ ko suñ ko deful nag loolu dafay tegtali mat ak yàlla te yàlla manqué de asalaam mooy borom mucc ci bépp manqué manqué. yàlla benn manque nan ko topp ko de almuuminu moo de aji gëm ay yonentam de yàlla gëm na ne moo yónni yonent yi jox leen ay kéemtaan yoo xam ne dañuy seede dañuy dañuy seede jëm ci nit ñi nit ñi itam seede jëm ci ñoom de almuuminu yàlla mooy aji seet mooy aji seedu yàlla teewee na lépp lu nekk la fekkee de aljabba al mooy aji not ci kaw nguuram kenn na ni moom te jabaaru mooy aji mbaru mooy jabaaru mooy aji jàng dama dama yi de yëpp yëpp mën na koo doon yàlla suñ coono doomu adama ak mesure doomu yëpp su doomu adama jaar ci jafe-jafe amul fenn fu mu yëkkati ay loxoom jëmee fenn ku ci yàlla rek yàlla rek la yaakaar mu dimbale ko bon nag bés bu ko yàlla dimbalee mooy damm dam boobu mu amoon jàngal na ko ko wala boobu jëbbaaru mooy aji mbëru yàlla mooy aji mbëru de ndax lan lépp loo xam ne noonu la ma ci àddina rek noonu la àddina di melee kenn mënta dindi ak kenn ñi ne di doxee jeex na noonu lay doxee kenn mënu koo dindi kenn mënu koo yëkkati bon loolu yëpp mu ngi wane ne ku mbëru la ndax bu mbëru wutoon bu defee nit ñi mën nañoo dindi de al mutakabbiru yàlla mooy aji rëy tabaat boobu yàlla rek moo ko moom kenn mënut a bokkaale moom nee na mooy sama xarmal sama euh, euh, mooy sama xarmal képp koo xam ne man rek xamal ne danaa la sànni ci biir sabar te du ma faale de subhanallah it dama sell ak yàlla yàlla sellal na boppam ci loolu de amaa yasifuuna walis ama yu sirkun walis da ngeen ko moom rek yàlla gën na sell moos seen erem yi nga xam ne moom ngeen jël di jaamu rek wa moom yàlla allahu moo de yàlla alxaaliqu mooy aji bind mindeef yi albaariwu mooy aji sos leen ñu jógee ci ñàkk rek yàlla moo bind mindeef yi te moo leen sos jële leen ci ñàkk ci ñàkk la leen jëlee xamal leen de almusawir mooy aji xamal leen dawu ñaan na ko sama tur ya alxuraan yi la way rafet de mooy asma mooy suñu yàlla yooyu ñu wax ne ci saatun wa ci suuna képp koo xam ne léeb na leen dana dem aljanna rek yu sabbihu dana sabbal lawu ñeel ko am fi samawaati la nekk nañ ca nguur yi te asamaan juróom-ñaar wal ardi ak suufi juróom-ñaar waxoo moom yàlla moomu al azizu mooy aji nag ci nguuram al hakimu mooy aji xelam ci mooy aji xelam ci njëf teefam de kooku moo yàlla melokaan yi yëpp amul kenn koo xam ne réelu nga bañ ne ko wax ci sa boppam ne anal xaaliqu anal baariwu yàlla rek moo ko sañaar ci boppam kon nag yàlla moomu xam na te dëgg la de ndax bu amutoon du xam boppam bay mel la boppam ñun ñii la mel ñii la mel ñii la mel ndax loolu ku am te yaa ko mën a def ba pare melal melal boppam amul benn mbindeef boo xam ne ak lum bew bew amul benn mbindeef bu ñemee melal boppam di wax naan anal jabbaaru anal mutakabbiru loolu bëriwul ñu ko ñeme bëriwul ñu ko ñeme rek suratul mumtahinati saaru mumtahina madaniyatun ko ñu madina la salaasa salaasa ñett salaasa asharata ñett ak fukk la aayatan ci ay kaw teef de bismillahi sos na ma sama yor ci tudd buur arrahmaani kay aji xewal mi ndax fu ñëpp ci duniya arrahmaani kay aji xewal julli daal ci àllaaxira yaa ayyuha alladina amanu laa tattaxidu laa tattaxidu aduwwi wa aduwwakum bokkul ko wasal wàcc na ci xare ci fakku makkata bi muy waaj am de yonente sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ne defoon na ca Xudaybiya muahada digganteem ak Quraysh bindoon nañ ay pacte ne ca Xudaybiya du du du ñu koy xeet fukki at ku tuub ci yéen ku tuub ku ku dawee ci ñun ñëw ci ñun da ñu ko delloo ku dawee ci ñun ñëw ci yéen du ngeen ñu ko du ngeen ko delloo ay fukki sàpp yoo xam ne moom lañ ubbi. li nga moo jaar diggante yonent yàlla Muhammad ak Quraysh ba nag xabiila arab yépp kum neex nga dugg ànd ak ku la neex ci ñaari kuréel yooyu kum neex nga ànd ak yonent yàlla Muhammad kum neex nga ànd ak Quraysh am benn gàdd arab boo xam ne nangu nañoo ànd ak Quraysh mooy Bakr ibn Waayil am benn xabiila boo xam ne nangu ñaw yonent mooy Banu Xuzaymata ñoom ànd nañoo ak yonent de bañ ànd ak yonent ah, ah. kenn ci waa Banu Bakri rey kenn ci Bani Xuseymata ñu ñëw ci yonent ne ko ñu dem waxoon nañ ne waxante woon nañ buñ leen defee nangam danañ fay dañ leen dimbale ñun de Quraysh rey de ci ñun ndax da ñu dimbale yonent ne ko waaw danaa la dimbale di le man kenn sax may ñëw danaa la dimbale de boo ko defee nag xam na ne dimbal bi li ci gën a gaaw mooy yonente sallallahu alayhi wa dem màkka rek ubbi ko na dem màkka rek ubbi ko ba defee nag moo dal di lal moom yonente ñi muy dimbalee ñooñu Quraysh mi nga xam ne ñi jaayanteeg moom Banu Bakrin ñoo rey kon nag bala fee nekk di xeexal Banu Bakr na dem rek koy si ma nga xam ne mooy cosaanu mbir mi na dem rek xeex ñoom mu jeex su ko defee yonent nag dal li waaj ngir dem fat fa makkata ba muy waaj nag di dem yonent musta fi jëm mu ngi bëgg a dem xare sàngam buy laajte dafay laaj waaw yoonu dëkk sàngam fan la boo ko teg boo ko teg fi jëm dafay laajte feneen laajte feneen ndax lan ngir bañ léeg-léeg naa fekk yi xam ay xabaaram nettali ko ay noonu su ko defee ñu mën a préparé moo tax bu daan dem xare daf koy nëbb daf daan wone leneen lu dul loolu bu bëggee dem Kaolack dafay laajte yoonu euh, Mbadakhoune fuy Mbadakhoune nangam ak nangam fekk Kaolack gii la jëm de la daan noonu la daan nëbbee ay kaaxam ba mu des Fatou Makkata Fatou Makkata nag bi mu ñëwee kundu rek saxaaba yi ne la pareel waajal damay ubbi ji màkka de waajal damay ubbi ji màkka dajale fukki junney soldaar wala ñu fukki junney soldaar ak ñaar ñoom la dajale ñoom la dajale ba ko defee am na ci saxaaba yi koo xam ne xaatib ibnu baltaata moom la tudd xaatib ibnu baltaata dal di yonent wax na ko li mu ko damay dem ubbi ji màkka ibnu baltaata li mu mooy mu jóg bind leetar waa Màkka ne leen yonent ak ñëw di xare seeg yéen te fukki junne soldaar la àndal bu àndoon bu àndoon moom kenn sax yàlla dana ko dimbale ci yéen waaye mu ngi ànd ak fukki junne soldaar kon nag na ngeen seen bopp fekk ci jamono yooyu ci dina am na benn jigéen boo xam ne mbay yàlla mbay yàlla ba ñuy Haashim la liggéeyam yépp mooy def boppam buti bu bëgg a jënd rek ñëw loolu moo doon liggéeyam de ba ko defee mu ñëw Medina ci yonent ne ko dama laa yalwaan si yonent ne ko ah ana sa ya mu ne ko ñoom ñëpp rey nga leen amatuma dara amatuma dara amatuma benn far ñëpp rey nga leen de yonent daldi koy sarax muy waaj dem ni ñibbi Xaatib ibnu Baltaata ñëw ci moom dindi fukki li bi door jox ko jox ko lettre ne ko lettre bi boo demee nga joxal ma ko Quraysh ndaw si daldi koy lépp ci biir lépp ko ci biir karawa ba mu demee ba sori Madina yàlla xamal yonent bi loolu yonent ko Seydina Aliyu ak beneen saxaaba ne leen dem leen dabale ma ndaw soosu bu ngeen demee am na benn lettre bu mu yóbbu ngeen indi ko ñu dem àll yi daj ñu ñu dab ndaw sa bañ ko dabee àll yi ne ko lettre bi ngay yóbbu indi indi jox ñu ko mu leen man aw ma am benn lettre ñu ne ko ankay yaa ngi amee lettre mu ne am na ma lettre de bagage jàngoo bu cité leen ñu cité ni cité gisuñ dara àll yi ne yonent bi du fenn te yonent wax na ñu ne ñu ngi amee lettre de génneel lettre bi léegi léegi wala mu futti la nga def nga def xàllab te nga def xàllab neen loolu la yaaram gën ak lu ñu kàccoor xaw bi leen di danoon fa sama yéexale lan fa ma bëgg rek bu ma leen defalee lii ñe ñu foog ñu mën naa sàmmal sama xalal te man xam naa ne yow yàlla dina la dimbale buñ xamee yaa ngi ñëw yàlla dina la dimbale buñ ko xamul tam yàlla dina la dimbale waaye li wóor mooy weddiwu ma tey laa gën a gëm tey laa gën a gëm yàlla tey laa gën a gëm ne yonentab yàlla nga tey laa gën a gëm ne li nga indi mooy dëgg ci àddina de te xam nga loolu boo demee ci attey réew yi mooy lu ñu tuddee alxiyaanatu alkubra alxiyaanatu alkubra sa réew mu ngi préparé benn guerre nga jël xabaaru guerre boobu yónnee ko ay noonam loolu ku ne xam na ne mooy alxiyaanatu alkubra loolu atteem ci àddina bi yëpp mooy rey atteem ci àddina bi yëpp mooy roy ba ci jamono yii ku def loolu sa atte mooy roy ba ko defee Seydina Ousmane Seydina Omar lan la génne jaa seen ne yonent jox ma ndigal rek ma dagg boppam naa fekk bii mu ne ko defal naan ko defal naan ko Omar xanaa xamoo yàlla xool na waa Badar ne leen ma shi'tum fa fa inni qad ghafartu yéen waa Badar def leen lu leen neex man yàlla baal naa leen de te moom fekkee woon na Badar bokk na ci waa Badar de yaa seen naamaar dal li jooy nag te yàlla ko yonente ne bàyyi leen ko bu kenn waxat ci moom dara bu kenn wax ci moom lu ko naqat bàyyi leen ko defu dara ndax lee xamal ne defu dara mooy di di ko yàlla di woo waxu ko yaa ayyuhal munaafiqu aw yaa ayyuhal munaafiquuna aw yaa ayyuhal kaadibuuna dafa wax ne yaa ayyuha alladina amanu ba nga xam ne gëm na de moom la yàlla di wax ba bayka nag yonent dal di taxaw ci dem fatxa makkata dem ubbi ji màkka ndax ubbi na war naa ubbi màkka ba pare teg ci ñooñ nga xam ne jaayante woon nañoo moom ba ñu xusey mata ku ñu song yonent dina leen song kon nag yonent dina dem dimbale leen li ñu leen di dimbalee du fi nekk di def gaax ak bënn bakkar ak yooyu dafay dem rek makka ci boppam nga xam ne fa la wa bàyyee koo rek mu jeexal ko mu jeexal mag mu jeexal makka rek daldi takk xareem boo xam ne mat na ñu ne fukki junnee nit ak juróom wala fukki junnee nit ak ñaar dem makka ubbi makka balaa ah. gerte bee tàng wax kilifa Makka yëpp teew nañ leen dajal leen ca Kaaba ga ñuy xaar àtte yónnent ci ñoom lu yónnent wax ci ñoom rek mooy am lu yónnent ñëwee taxaw sang yëpp ñu ngi leen xeew ci ne nag ay jaasi xaar rek bàtt yónnent lu muy wax bi yonent ñëwee ne leen man ana minkum man kan laa ci yéen ñu ne ko axun karimun wabnu axin karimin ñu ne ko mbokk mu tedd doomi mbokk mu tedd moom nga mu ne leen izhabu fa antum mutlaqa dem leen xataa laa tasiba aleykum kenn du leen yedd de dem leen ak lu ngeen musi def de noonu la jeexalee arabada chef général chef d'armée bu dem guerre yi ba ubbi li ngeen guerre amoo yenn condition yooyu joxe ne nii la nii la nii la laajoo dara di ngeen ma fay dara defoo dara dem leen rek kenn yeddu leen loolu yonent rek moo ko mën de keneen mënu ko chef des armées bu ndaw sax bu ndaw sax bu demee ba gañe tuuti rek di si wone di wone dooleem añ xam nañ ci dara ci fan yee passé Reci, sindiran tek nari ganari, kan selani filan akati filan ini. Lula nak lendang, bukada si dekibi. Paya keke dekibi di nonu dek. Lula ala dinya telemu ya, yuwa dekira amal mu'in, eh, gaya gemar Qur'an. Bunga khamna bata ada du efer, duli lere, lata tak ilu wai boleh japot. Abu Rinon sama Abu Kumai Nonsen, ni efer makai, awliya ni wai menggo, terukumur yang ileen jëm ci ñoom nga li yonent bëgg a def màkka de ngeen leen nga xamal ne yonent bi bëgg ñëw ngir ubbi si màkka mu ne leen loolu ko def jot tul xuura da ngeen jottali yéen ci ñoom bi moo def ci kafaral ngeen di ma xam bi maa leen na bu ngeen ko waxat kafaru waxat kafaru te weddi nañu ñoom aybaru màkka bi ma jaakum ca la dikkee na leen ne ca dikkee na leen mi ne màkk ci dëgg ko diine di saaba alquran de aybaru màkka yooyu nga xam ne dañoo weddi li yonent dikkee li yonent ko kon nag yéen bu leen leen bëgg yàlla ngi wata di ko jullit na bañ a xaritoo yéefar ci kaw mooy bu jullitam booy xaritoo kéefar euh, daal bu ko def ci sa kaw xaritu julli de jullit moo gën xaritoo ko moo gën xaritoo ak yéefar ndax yéefar li njëkk njëkk ci moom mooy amul kóllëre waxtu wu mu la xuruj rek dana la xuruj jullit moom am na kóllëre boo xam ne dana ko sàmm bu ngeen àndee bu ngeen àndee dana am loo xam ne moom dana ko sàmm te yàlla tax mu di ko sàmm de mu ne moo tax mu ne bu leen jël xeefar yi di leen xaritoo bu leen bu leen def loolu de ndax xeefar loraanga rek lañ leen di bijjël xaritoo jullit nag foofu la foofu la njëriñ di bàyyi ko jëm si ci jullit ñi wa ana man alamu dama xam ne maa am koo xam taxoon nga dinañu li may jaar xam ne dikk na leen mi ne makk ci dëgg nekk lislaam alquran de yoxuri ñoo la loolu ñu génn naa rasul yoon tuba yàqu ak yéen ba ngeen nekkee naka ñàkk doole ñoom yëfa yooyu duñ leen defoon dañ leen a génne woon ngeen jógee màkka dem ba Madinatul Munawwara yëfa yi ñoo leen ko defoon way yàqu ak yéen génne rasul génne yonent bi génne leen yéen tamit ngeen ànd ak yonent bi antu minum bi bu ngeen gëbal bilaay ci yàlla te defuñ leen ci kaw dara too da ngeen a wax ne yéen nga la ngeen gëm rek rabbikum kay borom seen in kuntum nem nekk ngeen xarajtum ye wa iyaakum ak yéen an ngeen bu ngeen gëm ci billaahi ci yàlla rabbakum kay borom seen de in kuntum nem nekk ngeen xarajtum mbir mu ngeen di way génn xarajtum di way génn jihaadan mbir mu ngeen di way xare fii sabiili ci yoonu diine yàlla ji wabtigaa mardaati ak ci sàkku ngërmaane yàlla de su ngeen gëmee yàlla daal def leen noonu rek ànd leen ngir yéen jullit ñi te itam ngeen bañ a déglu xeefar yi nga xam ne dañoo bëgg a jaar seen digganteeg gëm yàlla bëgg a jaar seen digganteeg jihaat ci yoonu yàlla bu leen nangu loolu de nangu leen li nga xam ne moom la leen li ngeen di def yëpp na ngeen ko def ngir sàkku ngërëmaande yàlla na ngeen ko sàkku itam ñu ah, di ci ci fonk xeefar yi rek du seetloo na da ngeen mbootal ilayhim ci ñoom gën a def ci cofeel da leen di wan cofeel wa ana man aalamu dana ma xam bi maa faytum la ngeen nëbb maa ay ja bi maa faytum la da nëbb ko wa maa alantum ak la ngeen feeñe ko yéen a ngi leen di feeñal ak cofeel te man xam naa di nekk ci yéen de lu baax la xam naa ko li ngeen nëbb ak li ngeen feeñal yépp man yàlla xam naa ko de wa man yafaaluhu ku def na mu minkum ci loolu ngeen joxe xabaar yi yonent bi mu jëm ci yéefar yi faqad dala ko ku salaasa bi yoonu yoonu jëm ci njub de képp a xam ne nag ngi jël xabaar yonent bi ne daf koy tasaare di ko yox ay noonam kooku la xam ne génn na yoonu njub de waxut ne génn na ci diine waaye li muy def ci ba jot ci yéen ba jekku leen te leen di woon ak noonoo boo xam ne foogu leen ko woon de wa yabsutu te ñuy tàllal ilaykum ñeen ci yéen ay diyahum ay loxo seen ci rey ak góor de suñ demoon ba nga xam ne jot nañ ci yéen diñ bëgg war ngeen xam ne ay noonu lañ de ndax danañ tàllal seen loxo jëmee ci kaw di leen rey te dóor wala sinatuhum ñu tàllal ay ñu tàllal ay làmmiñ seen bi suruy ci wax ñu ñaaw di leen xasaka ngàññi de loolu moom la xéefal bi defal moom la bi moo nekk ci xolom ngay faru moom la ngeen di julli dégg wala duuru danañu bébé danañu bébé ñoom ngay far yii law takfuruuna ak weddi seen yàlla ak kéefar seen def ñoom it kéefar yi itam ñu ngi ñaan di bébé ci seen xol ngeen dellu nekk ay yéefar ni ñoom lan tanfa'ukum jëriñ ci leen arhaamukum ay jëriñaale seen wala awlaadukum du càggeen ay doom seen yu góor de ñoom xeefar yi loolu ngeen defal yëpp taxut seen jegeñaal rek li ngeen bokk ñoom yëpp taxut ñu fo ñu ñu mu jëriñ ci ñoom rek ak du leen jëriñ eh, seen jegeñaal ak seen doom yu góor du ngeen jëriñ dara ca mbugalam yàlla doom am leen alal am leen li ngeen bëgg a am yëpp waaye su ngeen wu kër gëm yàlla du illaa man atallaha bi qalbin salimin foofu rek lay lay lay jënde waaye nag jàpp ay noonu yàlla ne dañ leen di woo ndax ñu am ci ñoom teraanga dañ leen di dimbandikoo ndax ñu am ci ñoom teraanga ndax ñoo ko am mu ne loolu perte maa rek ci yéen te du leen jëriñ fii ci àddina du leen jëriñ ëllëg de seen doom ak seen alal yi lu bëri bëri du ngeen jëriñ dara ëllëg ci àllaaxira yow nag daa ci yu salu def na fasale bay na um di rek seen bu bés bañte nag yàlla na leen fasale yéen ñëpp atte seen diggante rek dem ñi aljanna dem aljanna gan bi ñu fa yàlla ñu ci yàlla boole ñii dem safara dem safara yàlla ñu ci yàlla musal wallaahu yàlla parce que noonu aji gis aji xam na moom bi maa tàmm doon ci la ngeen jëf ko de xatkaan loolu laaj xatkaan nekkoon na la ko ñeer leen di sotun euh, roy fii xasanatun yi da aji rafet te Ibrahima ci Ibrahima ci Ibrahima rek ci wax ak jëf man ngeen a roy yonent Yàlla Ibrahima rek ndax ba mu demee di agsi azaarat bi azaarat bi laa uhibbul aafiliin in lam tahdiinii la akuunanna min in lam tahdiinii la akuunanna min al-qawmi ad-daalliin loolu la Ibrahima waxoon de ak la la waxoon nitam ña wala ñu ne ñu ne am nañu ànd nañoo yonent yàlla Ibrahima ak ak ba leen seen nit ñi di campagne ba gën a yóbbu ci kéefër lu mu leen tontu isxaalu ba ñu waxee ne xaw ngeen ñeel ay nit seen nañ naan ak ñun buraa um bay dégg nañu min kum ci yéen wa mi ma taabu lu lu na ngeen jaamu ko de yonent yàlla Ibrahima ba ko bàyyam a azara bëggee azara bëggee dugal ci kéefër ndox nit ñi dañoo bañ yonent yàlla Ibrahima ak ñi ànd ak dañoo bañ ne ñoo bañ ñun nekkal nañ yàlla rek yàlla lañ gëm ne inna naka ñun Quraan mooy dañ nañu min kum ci yéen waru naa taabudu na ak teel na ngeen jàpp ko ci ay xeram de min dune ñu koy yàlla kafar naa te comme ah, wéddi nañ leen de ñun wéddi nañ leen foog foog nañ leen xamuñ leen de fank nañ leen xamuñ leen wa badaa feeñ bay na naa diggante sunu wa bay na hum ak diggante seen ala daawat ak noonoo de ñoom ñëpp xeefar yi buñ demee ba xam rek nen na mu leen ànd ñoom ak noonu rek lañ nañ di woon de wal baax daa war ba ñëra ba den dappet xataa tuuminu benn ba te ngeen gëm ñoom yonul ci àlla Ibrahima ak ñu teg ñe bañ xamee ne eh, ba ñu teg ña xamee ne yonul ci àlla Ibrahima mii ak ñu teg ñi weddi nañ weddi nañ la seen nit nekkoon ba pare jàppee leen ñu ay noon jàppee itam nit ñoo xam ne nit ñu sibu lañ ndax lan loolu bu ñu ànd ak ci dara bal ba ta ngeen gëmee billaahi yàlla wax dawu daal muy muy aji wet ngir muy aji wet de ñun dootuñu ànd ak yéen leen àndatuñoo ak yéen dara bàyyi nañ leen bal ba ta ngeen gëmee yàlla bu ngeen gëmee yàlla nag bu boobaa nekk nañ ay mbokk de illaa xawla ibrahima roy leen waxi illaa qawl a ndare wax Ibrahima loolu moom bu leen ko roy wax na ne qad kaana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima mu ne nag illaa qawla Ibrahima ndare wax Ibrahima léegi ñii ñaar bàyyam ne ko laa saxarat na walaay dana ma baru dëkk ñu yàlla de loolu moom bu leen ko ci de ndax kéefar moom bu dee jullit waru ko jaam waru ko balul yàlla bu dee ci kéefar bi de sa bàyyi la sax amoo àq balul ko yàlla say say waajur buñ dee ci kéefër amoo xàq balul leen yàlla ndax diine ji dagg na seen diggante complètement ñu leen ga ñu di deret ga rek biologiquement moo fa des waaye leneen boo lekk leen ndax jullit bu waa jullit mooy mbokkam bu ma kon nag ah, loolu Ibrahima waxoon ne dina ñaanal baayam yàlla jéggal ko mu ne loolu moom bu leen ci roy Ibrahima ndax Ibrahima ba mu ko defee sax yàlla nangul ko ko def maman bi ko moom tamit léegi ñaar lañ ne laaj si yàlla seen mi seen dara mu ngay wax bàyyi na ko man man de lu ma la dara dama laa mun de waa waa bu leen bu leen ko def bu leen ñaanal kéefar yi nga xam ne génn ci seen kéefar de waaye ñaan leen rek génn ci seen bopp ak seen i mbokk jullit de rabbana yow borom sunu aleka ci yow tawakkalnaa la ñu dëgërlu yow yàlla. ñun ci yow lañ defarlu way lekk ci yow yàlla anab naa dañuy dellu rek te itam xam nañ ne ñu ngi rek dellu ci yow war na sunu mujj waaye ba nga nekk jëm ci yow rek ñun ñëpp ci yow la ñuy mujj rek rabbana yow borom sunu laa tajal naa bu def ñu fitna tan ñuy fitna illa dina ñeen ñaa ñaka fago wet dinañu yow yàlla yàlla bu ñu def fitna ñi yàlla ñu rabbana yow borom innaka naka yow anta yow azizu yaa ñu nekk ci sa nguur alxakim yaa ñu xarit ci sa fàttere loolu la xam nañ ko nañ ko ñaan nañ ko ci bàyyi nañ ñaanal yàlla suñ bopp ñaanal yàlla julli ñëpp ñaan ci yàlla dellu ci yàlla ndax lépp ci yàlla dellu rek kon nag nañ ñaan rek torox lu jëm ci yàlla waaye li yéefar yi nekk di jàmmooy këram ak di bañanteeg loolu moom bu leen ci fekk de bañ leen yéefar yi bu leen leen nangu waaye nag bés boo xamee ne nag ah, ah, gis nga ne amu leen benn pexe amu benn kàttan ci seen kaw bu boobaa yàlla may na la ngeen jàmmoo ak ñoom ngeen am jàmmoo ak ñoom illa an tattaqu minhum tuqaatan bu ngeen ragalee ne daal am nañ ci yéen kàttan boo xam ne amu leen ko bu boobaa wattu leen seen bopp rek xam ne amu leen doole wax fer yàlla nga jéggal naa ñeen mi rabbanaa yow borom sa innaka naka yow anta yow al azizu yaa yaa ngi not ci sa nguur alxakimu yaa ngi xeeñ ci sa jëfee jëfee def laqad kaana nekk na lakum yaa leen yéen xeet yonent yàlla Muhammad yëpp fiihim ci ñoom ñooñu Ibrahima ak nitam ñooñu iswatun royuwaay xasanatun muy aji rafet ñoom xeetu Ibrahima ak xeetam woowu gis ngeen ci ñoom loo xam ne man ko roy def te lay doon def li man kaana ñi yàlla nekk na moom. yar ju dana mu ragal laa yàlla yar ju dana mu yaakaar yoolab yàlla yar ju dana mu yaakaar laa yàlla yoolab yàlla de wala yow maa ngi bés laa kër ba daa ñu mujj mu ne képp koo xam ne ragal nga yàlla yaakaar yoolam mën ngaa jàpp ñooñu ñuy ay royuwaay yoo xam ne nit mën na leen roy de wa man yatawalla ku dëdd na mu nag walis ah, ku dëdd na mu dem ne nguur geefar yi ومن يتولكم منكم أكثر فإن الله نكال ومم الغني موي أجي دويلو وليس أي من يفهم ده بغن بيانا دم hande gefar yi mengok ñoom da ngeen xam ne seen bopp ngeen di toroxal waaye yàlla moom borom xam-xam la de asallaahu ndaxte la yàlla an yajaala bu mu defar baynakum diggante seen asallaahu ne dafa baynakum bayna lazina alaykum bokkul ko wasal wàcc na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam takkee Umu Habibata doomi Abu Sufyaan xam Abu Sufyaan amoon na doom bu jigéen bu tudd Umu Habibata jëkkëram jullit la woon bokk ci ñi gàddaay demoon Habasha ba demee ba Habasha jëkkër jëm nit di yàlla soppeeku nekk catholique ba pare Umu Habibata nekk fa amul jëkkër bu ko defee nag ci soow ci moom métier woowu mu ne yonentam teralee ko takku ko def ko jabaram wax Najaasiyu ne na ko na ko ko takkal Najaasiyu may ko Ummu Habibata jox ko alal ju bëree bëri takkale ko ko yonent sallallahu alayhi wa sallam de ba pare tey Quraysh daal di déglu ñëw ci Abu Sufyaan ne ko ah yow dégg nga ne xew Ummu Habibata yonent fekk na ko de mu ne ko ah, boobu koy kul la moo xam ne fu mu jege seen banka doo ko dàqale boobu kay ku nekk bëgg naa boranteeg moom nee na gannaaw loolu nag te tàmbali di bëgg yonent di bëgg yonent ba mujj tuube moom la yàlla di ñettale mu ne yaa sallahu waxaan na yàlla am seen wa bay na lazina ak diggante ñaan aabeetum noonu xante ngeen ñi nga xam ne da ngeen noonu ak ñoom min hum ci ñoom ngay boru makka moo dëttan ak cofeel yàlla mën naa bind seen diggante ak cofeel de gannaaw bu ngeen nekkoon ay noon yàlla mën naa def seen diggante cofeel de wallaahu yàlla xadirun ay yaatal la mu loolu yàlla mën naa def de te amee na nag ca umu habibata daf nekkoon na ndaxte mun ay yéeram la mu ay jaamam de laa yanhaakumullahu waaye mu leen yàlla ani lladiina ca ñaaña lam yuqaatilukum xare ci ñoom yéen xeefar yi nga xam ne xare bu ñoom yéen ñooñu yàlla xaayewu yàlla xaayewu leen ngeen jëflanteeg ñoom ci teraanga ci diini ci diine dañu xaat la comme xare ci ñoom ci diini ci diine wala mu dafa ñuugum jëndati leen min di yéerikum ngeen tukkee seeni kër anta baruhum bu ngeen baaxee bu ngeen baaxee bu ci ñoom de yàlla xaayewu leen ñooñu nga xam ne xeefar yi nga xam ne xeexuñoo yéen génnewuñ leen seen i kër xattaluñ seen diine yàlla ayowu leen ngeen jëfanteeg ñoom teraanga de woote su fekkee woote ngeen maandu di leen jëm ci ñoom yàlla sant na bu ngeen di àtte bu ngeen yàlla yokkat bu dara mu yor al muksitina way maandu ñu de loolu la yàlla sant jullit ñi ci xeefar yi nga xam ne xeexuñoo ñoom. xatal ñu leen ci seen diine génnewu génnewuñ leen seeni kër yàlla nee na ayewuma leen ngeen jëflanteeg ñoom ci taranga ci nite ayewuma leen na ngeen maandu bu ngeen jëflante jëflanteeg ñoom na ngeen maandu seen diggante rek ndax yàlla dafa bëgg ñu maandu ñi dafay ñëwal ëllëg ci àllaaxira ñi nga xam ne dañoo maandu rek innamaa yanhaakum naka dana mu tere leen innama yanhaakumullahu naka dana tere leen dana tere yàlla ani lazina ca ñaaña qaatalukum rayatan ñëw ngeen ci diini ci diine ñi nga xam ne dañu xeex ak ngeen ci diine nag wa axrajukum te génne leen min diyaarikum ngeen ci kër seen wazaaru te dimbalante alaa ixraajikum ci génn seen wa axrajukum ñu génne leen min diyaarikum ngeen tukkee ci ay kër seen wazaaru ñu dimbalante alaa xaajukum ci génn seen an tawallahum bu ngeen nangoo ak ñoom de ñu ma leen di aaya kay mooy ñi nga xam ne dañoo xeex ak yéen dimbalante ñoomu kese ak seen i dimbalante ak seen i noonu yéen jullit ñi ngir génne leen seen kër ñooñu la yàlla xaaye ne bu leen jëflanteeg ñoom ci taranga bu ñu leen jaayee bu ñu leen bu ñu leen jaayee rek jënd leen ko bu ngeen ko mënee rek da nag ñooñu képp koo xam ne nag yaa ngi dem ànd ak loolu ñuy def nga dem ne da ngay ànd ak ñoom méngoog ñoom yàlla mu ne ñooñu ñooy tooñkat ñi rek bu leen leen ñooy ñooñu ay tooñkat lay te tooñkat ëllëg bàyyi ca làkkira mooy mbugal rek ah, nekk ni jamono bi tubaab yi def lu nekk def nañ ñu ko ngir génn ñenn ñi ay tooñkat de ñoom dañuy dimbale waaye ñun ñoo leen di tooñ seen i ndax nit boo ko amee muy sa noon boo xam ne naan boo mu ne lu dara la ndax lislaam mooy noonu kufru yëpp al ummat al al al al kufru millatun waxida ñoom ñëpp lislaam mooy seen noonu pexe mu nekk def nañ ko ngir dindi ko waaye munuñ ko waaye léegi nag li ñu xewal mooy fexe rek baaxay wu nekk rek ci julli ñi lay feeñ ñoom kenn ñooy rayante ñoom kenn ñooy lakkante kër ñoom kenn ñooy dem ci réew tubaab yi dafa taal xay loolu yëpp pexe tubaab yi la ñoo ko def pour feeñal jullit ñi ne jaruñ dara ay ay ay seytaane lañ duñ ay jullit ay bokkaalekat yàlla lañ reykate ay nit lañ ñooñu moom moom lañ leen bëgg génnee te itam def nañ ci ay pexe yu bëri ba mel na ne xaw nañoo am tuuti ci ci ci liñ bëgg waaye duñ ko am rek ndax jullit ñi yàlla lañu ànd ak yàlla moo leen di dimbale de yaa ayyuha alladina amanu idaa jaakum muminaatu lu ko rasal wàcc na ci mbooloo ci ay jigéen dañoo gàddaay jógee Medina jógee Màkka ñëw Medina buñ gàddaayee ñëw Medina wax na ñoom dañoo ñëw gàddaay si ngir dugg ci lislaam dimbalante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla di leen digal ne ila jaakum dem dikkal na leen al muminaatu way gëm ña ci seen làmmiñ muhajiraatin mbir mu ngi way gàddaay jëm si ci yéen famtrahinuhun na nattu leen leen de su ñëwee bu leen wax de rek nañ ñu ñëw nañ bu leen leen nangul nattu leen leen ba seet ndax li wax dëgg la wala déet ndax mën naa am makka am na ko fa joteeg jëkkëram bëggu ko am na ku mu bëggoon gàddaay ñëw ndëri na mu am lu lay rek gàddaay ngir fekk si kooku mun naa am loolu la mun naa am dañoo gàddaay rek ndax am na xale lu góor bu ñu ne woon gàddaay na ànd ak yonent rek xale boobu moo tax man hajara ne da ngaa gàddaay te jigéen moo tax a gàddaay boo demee loolu rek nga fay fekk mooy nag bu ñëwee ne gàddaay nañ seet leen ba xam ndax li ñuy wax dëgg la wala déet fay naa leen ko moom na allah yàlla alam mooy joxam yi maa ne ci gëm seen yàlla rek yàlla moom xam na li nekk ci ñoom fay naa leen ko moom na ngeen ngeen jortu ngeen leen leen yéen jullit ñi muuminaat si ñuy way gëm falaat ko jowoon na bu leen delloo leen iral ko faar ñu jëm ca yéefare rek bu ngeen leen nag ko nag ba gis ñii ay jullit lañ gëm nañ bu boobaa bu leen leen delloo ci yéefar bu boobaa bu leen ay jëkkër da ngeen takk leen de laabul na dee ñoom te loolu ñu ay ñun way la mu ñaar leen de jullit yëpp boo boobaa jigéen di jullit ñooñu tuub dagal suñu yéefar yi leen takk wala mu dee ñoom yéefar yi yaxiluna ñuy dagan ñu nekk ci barab dagan la wun na ñaar leen de yéefar yi itam dagan ñu takk loolu jullit ñu jigéen ñi naka noonu itam jullit ñu jigéen ñi dagan ñu seeg yéefar yi de waa tuum jox leen leen min ma ma fokk la ñu dundale woon ah, bu ko defee nag su fekkee ñoom dafa ngeen leen di jëkkër su fekkee am na ci ñoom ku amoon jëkkër daw ñëw bu boobaa sëy ba tas na waaye la ca jëkkër ja defoon ci alal na ngeen leen ko delloo gis ngeen maa ngi teg sax noonu la jigéen ñi gàddaay na ñëw na waaye amoon na jëkkër jëkkër yooyu nag lam defoon ci moom na ngeen leen ko delloo bu boobaa ngeen door ñu door a nekk seen jabar de wala junaaxa de bàkkaar aleykum yéen teg yoon ne bu ngeen takkal leen de ci charte boobu bu fekkee loolu def ngeen ko nag bu waxoon ngeen leen takk de idaa maa aataytumuuhunna na leen hmm? idaa aataytumuuhunna na ndéem jox ngeen leen ujuurahunna ay yoon seen de bu ngeen delloo seen i jëkkër seen i seen yi defoon ba pare bu leen neexee ngeen takk leen ngeen boroo leen takk leen su ngeen leen joxee ay seen yoo xam ne ci la ñuy takkee seen kenn de wala tumsikuhunna wala tumsiku bu leen la ngam mais sama kawaas yi ci buumu yéefar yi bu leen leen lépp loo xam ne dundule leen ko yéen jullit ñi ci jigéen ñoo xam ne jigéen ñi dañoo mujj daw dem ca yéefar mu ne lépp loo xam ne dundule leen wóor ko na ngeen ñu delloo leen ko wala yasalu nañu laaj ñoom itam maanaam topp la ñu rek ci jigéen ñi nga xam ne gàddaay nañ ñëw Màkka rek ñëw Medina rek am na ci jigéen ñi jullit ñi yoo xam ne murtad nañ daaw dellu Màkka jabar Omar ibn Xattaab am na jabaram bu defoon loolu am ko defee ñoom jullit ñi ñu laaj liñ defoon ci ndaw sañ ko delloo ñoom ñu bañ ne duñ delloo dara mu ne ñoom yëpp a ngi dem am nañu àq bu seen jabar ñu ne ñoom tamit ñu laaj nañ leen delloo seen alal ñu ci defoon bala ñoo bala ñu gàddaay de daalikum loolu de seen xokk mu laayee mooy àtte bi yàlla yàqum dana mu àtte foofu dana mu àtte bay nakum diggante seen de loolu la yàlla àtte seen diggante wallaahu yàlla alimun aji alimun aji xam la mu ay wax seen hakimun aji xarañam ci njëfteefam waaye faatakum ne faat na leen seyun dara min azwaajikum ci jabar seen dikk jabar seen naaw rek mu xataa boobu nga xam ne dafa wéy di daw dem ca xéefar ya fa aqabtum ngeen fayu ci euh, euh, ngeen fayu maanaam ngeen xeex ak ñoom ba gañe da ngeen fayu wala ngeen gañe ba pare am ganima fa ko jox leen léegi na ñaaña zahabat dem na zaaju may jabar seen de su fekkee kenn ci yéen jabaram daw na dem Makka yéefar na daw na dem euh, ngeen laaj ne ne kim demat ngeen laaj ko ne na delloo li li ndaw si li waa ji ci ndaw si ñoom buñ ko waxee waa Màkka yi dañoo bañ ne ñoom joxe wuñ dara jullit ñi ñoom buñ leen laajee nañ joxe waaye pour ñoom boo leen laajee dañoo bañ ne duñ moo tax mu ne su fekkee nag sa jigéen ñi jullit ñi ñu laaj leen delloo ñu bañ mu ne bu ngeen xeexee ba gañee bala ngeen di séddoo màng mi da ngeen seet koo xam ne na ngeen génne jox ko lu ci jabaram ngeen def ko ko ndax mu mën a takk jabaram su ko defee ngeen doon séddoo màng gi rek waa faatu jox leen di ba dem seen ci lañu dundule leen defoon ci seen jabar ñu daw ñu ñële bañ a delloo bu ngeen amee màng mu ngeen màng na ngeen ci màng mi tolloog la nga xam ne moom la defoon ci jabaram ngeen delloo ko ko ndax mu mën a takk beneen jabar de wa taqullaa ragal leen yàlla allazi yàlla ma nga xam ne antum yéen moom ñu la way ngeen bii ci moom de na ragal yàlla nag yàlla moom nga xam ne gëm ngeen ko na ko ragal jullit ñu bëri loolu leen laay ñi sant def nañ ko ñi nga xam ne nag yàlla ñoom dañoo bañ ne duñ ko def yaa ayyuhan nabiyyu yaa jaakal mu'minaatu yubaayi'naka wàcc na ci mbooloom jigéen dañoo ñëwoon di jaayante seeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci Hind ba ñëwee nag yàlla na yonent bi yaa jaaka ñeent dikkal na la al mu'minaatu jullit ñu jigéen ñi yubaayi'naka mbir mun dañoo na ma jaayante ak yow alaa laa yushrikna ci bokkaale te ñu billaahi ci yàlla seen dara wala yasriqna te sàcc te ñu wala yasina te jaalootuñu wala yaxtuna te reytuñu wala doon na ay doom seen wala yasina dikkeetuñu waxtaan bi ci duut yeftari na wuyu danañu duut ko bay na ay diir na ci kanam seen waajuleen na ak tàkk seen wala yasuna ko mooy fi def fi maarufin ci jigéen ñooñu hind ci la bokk hind moomu moom la yonent wax ne bu ñu bee màkka di fekk nañ ko mu langaamu ca ah, bu bi kaaba ga nañ ko rey de moom bokk na ci ñeent yi nga xam ne waxoon nañ dina leen rey di fekk nañ leen sax ca biir kaaba ga waaye reyu ci kenn ñoom ñëpp baal nañ baal na leen sallallahu alayhi wa indi ñëw yonent ne da ngeen di ci ne waaw mu ne awalan mooy ne du ngeen bokkaaleeg yàlla dara mu ne ko xam nga ne ku ñëw ci yow mooy bëgg a tudd bokkaale rek ndax xam nañ ne bokkaale rek nga bañoon kon ku ñëw ci ku ñëw ci mooy ñëw pour bokkaale rek mu ne te du ngeen sàcc du ngeen sàcc mu ne ko ah man sama jëkkër dafa nay du ma jox lu doy bu ma joxee après dinaa dem sàcc doole ci rek mu ne Abu Sufyaan mooy jëkkër Abu suturaal ma te demal jël lu neex rek wala yaqtulna awlaadahunna du ñu rey seen doom yi jind na ko ñun ñoo leen jur yàlla bañ màgg yow moomu yaa leen rey bon nag ah, wala yaatina di kettu ñu bi fukkaan ci ay nar yeftal mi naw yoo xam ne du sa doomi jëkkër nga fexe wax ne suma jëkkër moo ko jur loolu mu ne itam bu ko defee ndax loolu loolu la rek ba indi nekkee di toog toog te yonent ne moo xanaa kii wax indi la mu ne ko yonente indi la afalaawa masalafa li weesu woon yàlla jéggale na ko rek yàlla da lépp yonente dali koy baal nag mu ne loolu la sartale jigéen ñi nga xam ne ñoo ñëwoon tuub si wala yaa si naka te mooy pël ña fi maarufin ci luñ xam ci yiw de lépp loo xam ne lu yiw la lu baax lu maaruuf mooy loo xam ne boo ko defalee sa bopp rek mu kontaan loolu mooy maaruuf de bu fekkee nangu nañ loolu te bàyyiwul na jaayante la ñoom suñ nangoo loolu mën ngaa jaayante ñoom de wastaxfir jéggalul law law nañ yàlla laaxa yàlla nan leen jéggalul yàlla rek inna laaxa naka yàlla afurun aji jéggal la mu ñëw ay ay jëm raximun aji yërëm na mu leen de yaa ayyuha alladina amanu ee yéen gaa yi gëm alquran laa tatawallaw waaye bu leen nengoo xawman aw nit radiyallahu mere na yàlla alayhim ci ñoom te mooy yahuud yi wax qadari su qadari su naagu nañu min al axirati ca ca yoolam àllaaxira ëllëg kama ya isa naka naagoo al kuffaaru xéefar yi ñi nga xam ne nekk nañ di ay xéefar fii ci àddina niñ ci nit ku dee de du dekki kama ya isa naka naagoo al kuffaaru xéefar yëpp min asaabil xubur yi ci woromi xabru yi de ne ñu génnati ci seen bàmmeel mu ne loolu nga xam ne noonu la yéefar yi yéen yahood yi naago ëllëg ca àllaaxira mi ngi mel ni rek ni yéefar yi naago fii ci àddina ne ku dee jeex na dootu dekki allahumma salli ala sayyidina Muhammad soo sobi saaru sobi ma koy dum kuli makka la ba ma dee tu ñëw yu kuli madina la arbaun ñeent la arba asharata ñeen ñeent la ak fukk ci quartier de allahumma salli ala sayyidina Muhammad